ñu ngi siyaar tey nuyoo mbokk taalibe yi mbokk jullit yi di jiital ci siyaar gi ak nuyoo gi xalifatul am di sëriñ cheikh muntaxa mbàkke moom sëriñ basiru moom cheikhul xadim di ñaan sunu borom guddal ay fanam wéral ay cëram te lépp li mu naal sunu borom kàttanal ko bu mu matale ko nu ko bëggee di ñaanal jullit yëpp jàmm di ko ñaanal ñëpp rek ndax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daanoon na wax naan jàmm ci la lépp xaj ndax lépp looy def fii léeg amoo jàmm doo ko mën a def da ngay ba am jàmm soog kay mën a wéyal kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ci barkeb weeru koor gi ñu ne di amaat mbégte di dajeek yéen ci seen émission naafila du jour et bayit du jour kon tey ñu war a dëgmal la nga xamante ne mooy juróomu bis bi ci weeru koor gi naafila nag ga nga xamante ne sëñ sooy bu mbàkke andi na ko ci téeréem googu di xurudul ay ni mooy ci guddi tay gi def ñeenti ràkka goo xamante ne bu ci ne fatiha nga koy ubbee teg ci alam nasra benn yoon ak ixlaas ñetti yoon kon naafila guddi tay jii day doon ñeenti ràkka ñaari sëlman lay am ñeenti ràkka ràkka gu ci ne benn fatiha benn alam nasra ak ñett ixlaas kon muy naafila gu am solo lool ndax am na ay ngëneel yu ci bëri yu ci ne te sëñ faay bu Mbàkke andi na ko ci téeréem googu ndax nee na képp ku ko def mel na ni ku aji junni yoon waaye mel na ni ku umra junni yoon te dees na ko musal ci ak ñàkk waaye dees na dolli wërsëgam te xaraf wu ci ne rek dees na ca bind ñaari malaaka yuy far ay ñaawteefam di ko bindal ay yiiw di ko yëkkatil ay daraja bu bis bay dellu si dëwan te bu faatoo dees na ko bindal tuyaabaay ku dee ci jihaat te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp waaye dees na ko musal ci mettitu dee ñu ñëpp xam nañ ni dee lu metti la lu tiis la waaye te nee nañ képp ku def naafila gi rek faaw dana am ngërëmal yàlla te ngërëmal yàlla nañ ko xamee maanaam ñu naan àjjana sax am ngërëmal yàlla dakaa dàq fuuf yàlla na ko sunu borom defal te nee nañ képp ku def naafila bi bu faatoo des na ko ubbil ci bàmmeelam bunti àjjana yépp waaw mujj ca xew ba keroog bis penc waaw kon muy naafila gu am solo te guddul muy soññaat mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñëpp rek ñu farlu si bu baax a baax ci bëyitu bis bi bëyit gi ñu andi nag dañuy wëyal ci masaalikul naan gi nga xamante ne sëñ bi kon mu ngi ne koor moom nuñ ko waxewoon ca émission bi weesu yemul ci lekk ak naan bañ a lekk ak bañ a naan waaye koor day doon loo xamante ne cër yëpp dañ koy def kon cër yëpp dañ koy def kon nee na koor moom day loo xamante ne cër yëpp rek cër yëpp dañ ko war a def te cër yëpp rek dañoo war a fexe mooy tëndiku ba lépp luy yàq koor ñu bañ koo def kon yemul ci bañ a lekk ak bañ a naan waaye sa bët yi nga yor faw nga fexe bañ cee xool lu xaraam sa làmmiñ gi nga fexe bañ cee tudd luñ gërëmul sa nopp yi nga fexe bañ cee déglu loo xamante ne sunu bërëm gërëmu ko waaye sa tànk yi fexeel ba bu bul jóg di jëm ci loo jotaay yoo xamante ne loolu la ñuy wax majaalisu shahawa nga xamante ne jotaay yu ñu tere yi la jotaay yi nga xamante ne jotaayu texe di la kon mboolem cër yi rek muy loxo yeeg lépp rek fexe ba Euh, wattandiku def ci loo xamante ne suñu borom gërëmu ko waaw kon biit googu lañu àndi woon te mu ne ci masalikul jinaan di leen siyaaraat bu baax a baax di leen bégewaat di leen santaat bu baax a baax a baax ci teewlu gi ngeen di teewlu seen émission ci Diawartoulah TV di leen jox dig daje bu ëllëgee incha allahu rabbi te di leen ñaanal koorub jàmm wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu